jërë ngeen jëf mbokk yi bu ngeen gisee image yi mm, bërki dem wala matut ay bis ñëwoon nañ fi doon ci sàkku ndimbal bala jëye di am waaye comme ni niñ ko doon sàkkoo yàlla def na ñi nga xam ne que ne ñoo yilif dëkk bi ñëwoon nañ fi doon def liggéey boobu waaye image yi ngeen gis suñ suñ ginnaaw nii mooy kër gi nga xam ne moo tax la woon ak bâtiment bi biñ koy daanee bâtiment bi dafa dugg ci biir kër gi ba am lu mu fi yàq loolu danañ ànd ak yéen laaj ñi nga xam ne que ne ñoom la jéye ji am seen biir kër gi ba xam ñoom nan lañ dundee loolu. fii bâtiment bi daanoo tey sama kër la daan. ñu gis ne que ne ci ayu bis wala fukki fan ak juróom lu ko weesu bâtiment daanu na ñu gis ne tey doo doon teegale ñun ñu am moom def sa biir kër waaw bi njëkkee ñëw dañoo yàq mooy néeg bi defoon ma tuy ci buntu bi ak mbaar bi yàlla dogaloon ma def ci xar yi ak copine ak affaire yooyu ak seng bi looloo yàqoon ma di ko topp nag pour bâtiment bi daaru parce que wour keur gu melni ak nawet ay troisième étage tim la ma mawtuñ fee dëkk léegi da yo gëron dem feeje bâtiment bi daanaka benn salle lañ fa ñun ñëpp ci lañu faan mak sama ñaari soxna ak sama njaboot ñun ñëpp ci benn salle bi lañu ñuy waye bi yalla dogalé ñukoy top ba ba gàtt yow gis nga daari nañ ko alaaji ñay wax deug yalla sant nañ ko bu baax ndax sonu nañ ci rek biñ ko wacce wacce wal na ñaari néeg ci dess lépp ngi ci suuf léegi si tey nag ma ñu gëna jaaxal na ci gënu ci metti modi affaire bi amee ba léegi ñun gisunu borom gisuñu borom dégguñu ko xaw ma sax nu mel loolu lañ ci gën a métti. xam nga lii problème bu Sénégal bu dara amee ñëppay daw dikk waaye suñ fa jógee jógee ne keroog bi mu daanoo Alaye Ndiaye moo fi ñëw deux heures avant six heures autorités yi si yëpp ñëw nañ commandant bi ñëw na fi euh, communauté bi ñëw nañ fi euh, sapeur pompier ñëw nañ fi dañoo wax ne sax du ngeen génn kër gi da ngeen di génn kër gi ndax dañu wóor ñetti kër yëpp dañu dañ koy génn waaye nag boo génnee ay doomi aadama fan la ñuy dem xamuñ fuñ dem ngelawul déemul kenn xamul fooy taxaw metti lol nga xam tane autorité kéro bobé nga xam tane ne ñëw na ci bi ci séré biñu débé kéro kero lañ leen gëj a gis xanaa menu alaaji jaay da lay gis mu ci dox ak sëñ bakke Mara kooku sonn na ci lol taxaw na ci lol ñu koy sant di ko gërëm wax dëgg yalla tax bu ruwoon bobu yakarna sax yëf gaawé ni ñaar ñoy dal lañ fi xam ci ñuy sonn man nak lima ma doon déploré démb laay déploré Touba euh eladji Ndiaye programme li taxaw na ci taxaway bu reey reey ci wax ak euh, par exemple chinois yi ci ay pexé bopam Euh, euh, euh, le préfet préfet gouverneur nous devons réquisition bu mu chinois yi la mais avec une population de 1 million de personnes. personnes nuy recourir ci chinois matériel bu am Touba Touba transport de non seulement pokolé li na fi mais su fi amee mën na ko lijjanti mais pocalin yi daf lay daf lay daf lay dimbali sax ci gasum ci woo mi loolu mu wax itam ci assainissement bi dafa am benn danger bu ci am ndax assainissement bi ñu bari wax nañ ne am na ñoo xam ne seen i douche lañ jël dugal ko ci biir assainissement bi. gis nga loolu li ci danger mooy Touba léegi la nga toog mu yàgg nga dégg ñu ne euh, kër sangam jaan génn na fa nit ñi suñ ko deful ngir war ma seen bopp itam war koo def ngir seen sécurité ndax kenn ku ne xam ne nawet su ñëwee. Euh, euh, assainissement bi dafay tàng tàng gi muy tàng day tax ay jaan dañ ciy nekk jaan yi suñ ci nekkee comme ñoom euh, biñ koy defar kenn dañ koo dale mais kenn raaxu ko jaan ji day am possibilité jaar ci kaw dal bi su accès tuyau bu mu njëkk gis da cay dugg tuyau bi muy gis nag su ci duggee yàlla tere bis bu demee fekk kenn ku toog jaan nekk sa biir douche da nga xam ne nii maanaam loola moom Euh, lu ëpp a def la donc sécurité bi rek jar na tax nit ñi bàyyi jaan yi bari na ci dëkk bi li ko waral mooy dañuy jaar ci biir tiwo yi di dugg ci biir kër yi su fekkee nag dañoo dugg ci biir kër gi muy duus boo xam ne duus bu gàtt la dafay tasaaroo ci kër gi mën naa dugg ci néeg bi naa matt ko ne su fekkee dafa dugg nag ci duus boo xam ne dafa fekk muy nekk duus yu wateer yooyu xew nag léegi nga toog ci kaw nag fekk fa jaan kooku moom yaakaar naa ne ku koy def ko ne war nga cee xalaat te loolu am na ci kon nañ wax nit ñi ne danger boobu am na ci kon ku ko deful ngir respecté itam ji nga xam ne amuñu lu moom kenn ku ne xam na ne am na benn heure boo xam ne soo jaaree foofu am na luy gilli loo xam ne li ko waral mooy loolu kon dama yaakaar ne même suñ respecté suñu bopp itam tedd ki nekkal war nañ koo respecté ba yu mel noonu ñu bañ koo mën am